bon mhm. nga am sax jabar am koppar mhm. sa jabar war pourtant l'hôpital yaa ngi fi tubaarkal waaye dafa war a juree nga déplacé na yóbbu ci tubaab ay ah, yow lii lan la kenn xamul lan la complexe xeeb sa réew complexe la xeeb sa hôpital yi réew waaw kon kay ñun complexe la complexe la complexe nag moom la nit waral def ci boppam est-ce que tu dois de toi-même. très bien digne de nekk fi nga nekk. ah boo nekk ci dëkk même bu yoree ñadram gëmal ñadram yi nga am. Mm, très bien sa dëkk ñadram la am jàppal ci ñadram yi ne sama réew ñadram la am. ma jàppal sama réew ci ñadramam. courage baax. naay sax wax solo par la. nga li ni moom teg lenn. waaw ndax complexe man tamit est que tubaab bi dina ëmbi Amérique ñoo juree Sénégal. musta am musta am wax leen wax leen. wax lan leen ah. waaju ton tontu leen loola. mbi Amérique biir Sénégal ah, mos naam xalaatoo ko mos naam. lool la la loolu du complexe.